2STV fii seen seen confrère xawma ma collègue taal ngol-ngol barke dem rek la wax ne analyser violence kii lu xew Mbacké ne kenn nit na dañ ko war a rey bu ñu ko reyee dëkk bi am jàmm loolu du violence. li Ahmed Suzanne Camara nee nañ dañu war a rey Ousmane Sonko du violence li Moustapha Cissé Lo waxoon ne dañ ko wara ray de violence ban procureur mo auto saisiru assalamu asalaamaaleykum ma len di ziar bu baax baax president basirou Diomaye fay lañuy dem déglu ji biñ ko invité 2 tv gars ñi dem sétane vidéo ba paré ñëwaat légui légui yow buñ la buñ la convoquer justice yaakar nga né ya ëpp Ousmane Sonko ak ak yelef ci biir réew mi ba yow bo xey nga dugg sa auto ndank dem tribunal mom 4 h du matin lañuy ñëw barricade kërëm tag fa ay char tag fa ay dragon tag fa ay meute de policier kérok yéen gis bu mu doon génn de jeu ak balam policier bi di côté téye la nek en résidence surveillée kañ la ko juge teg euh, daan goo xamante ni dafa limiter ay déplacement ba yematuñu ci barricade keureum waye buy génn sax policier koy top di côté téye de violence président Sonko dafa am njabot am ay xale yu tuut tànk ngay jël dispositif bobu diko ko ci buntu keureum tout le temps ci lu teguwul fenn un sénégalais qui est convoqué en justice loi ci bon ma bobo ko may mu 4 h du matin de violence c'est-à-dire bu ko doon d'accord mais dernière chose je may dire, ce harcèlement policier et ce harcèlement judiciaire là ñaata yon confrère collègue barke dem rek la wax ne analyser violence qui lu xew Mbacké ne kenn nit na dañ ko wara ray buñ ko reyee dëkk bi am jam loolu du violence li Ahmed Suzanne Camara né nañ dañu wara ray Ousmane Sonko du violence li mustapha si solo waxone ne dañ ko wara ray de violence ban procureur auto autosaisir alors qu'au même moment ces procureurs là sont en train de s'auto saisir scruter ay compte ay ay ay ay post Facebook nit def ay trois émoticônes ñu ko ñu ñu dem duggal ko kaso pendant six mois sans sans aucune suite loolu de violence. Mm-hmm. ban riposte lañ ciy jox mooy nit boo nekkee ci nooteel yi da ngay fippu loolu dafa araam loolu araamul mais mais bu ñu tax léegi lan lañ mën a def ba jàmm ñëw nag mm-hmm. parce que loolu itam mooy àlkala bi c'est-à-dire sénégalais yi jàkkare gi ñu am euh, lan lañ mën a def ak tension bi ñuy nemmeeku xët-xët yi am dënn yi jóg nan la ñuy def ba jàmm mën a lalu ba ñu dëgmal élection présidentielle def ko ci jàmm oui parce que li ko mën a indi mooy boo ñëwee fekk ñaari nit ñoo xamante ne ñu ngi jaamarloo mu am kenn kuy dóor kenn ki di fayu da ngay ne kii dóor bàyyil dóor yi bu dóoratul rek kee du am lu mu fayoo c'est aussi simple que ça dañu nekk ci dëkk boo xamante ne dañu am président de la république ba boo xam balaa mu doon toog ci kaw Sénégal ñu ko ñu koy fal ñun ci suñu cewbare bopp dafa xeex ñu xeexandoo ak moom ci mbirum troisième mandat mom 2016 ci référendum dafa ne réew mi dañ ko wara a di ut troisième mandat bu fukki bakkan ak Ben, rot ci waratul am président de la république moko wax en 2016 il était président depuis quatre ans mu tok je viens vers vous pour un second et dernier mandat ay nitam tok fune ne mu amatul droit def troisième mandat fait fekk constitution limité le nombre de mandats mu ne dafa renforcer lolo yow naka ngay fekkee constitution limitée les mandats à deux nga bëgg renforcer loolu loolu may la troisième mandat loolu yëfu tàppale la loolu nag moo tax lu mu nekkee woon depuis 2012 traque opposants yi liquidation systématique mu mel ni un tueur en série d' opposants liquidé Karim Karim Karim Wade liquidé Khalifa Sall li bëgg a liquider Ousmane Sonko c'est-à-dire non seulement amul droit le droit de compétir, ko ne forcer mais il forcer on ne peut pas être dans un pays démocratique où c'est le président qui va en compétition qui décide de qui va compétir et de qui ne va pas compétir mm-hmm. donc tant que accepte le jeu démocratique normal qui donne le droit à tous les Sénégalais de compétir, mais je suis désolé, mais les gens vont continuer à lui imposer la lutte pour, pour qu'il respecte ces droits-là parce que l'on réclame visiblement. ginnaaw bi ngeen seetaanee vidéo pare maa ngi leen di sant bu baax baax di leen wax ngeen di abonné di like di partager déglu ngeen ki nga xam ne mooy président ba Bassirou Diomaye fay temps yooyu noonu nag ci opposition bi la nekkoon quoi boobu nekkagul président loolu la waxoon ci ay jamono quoi gis nga ñii dañuy yàgg xeex te loolu noonu mooy yàgg am Sénégal quoi gars yi di bàyyi mu jàll boo amoon sens rek mooy nga bokk ci Macky Sall quoi nga bokk ci eh, Benno Bokk Yaakaar boo boo boo bokkul foofu noonu rek amoo sens quoi. pourtant Bassirou Diomaye Faye waxoon na ko ndax taal ngol-ngol moom yal na ko yàlla xaaree àjjana yërëm ko te xaaree ko àjjana quoi nee na fii Ousmane Sonko dañ ko war a rey quoi. nee na lii yëpp benn nit la quoi boobu nit boobu noonu buñ ko reyoon dëkk bi dina am jàmm quoi mooy noonu dem na wuti suñu borom yal na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana Bassirou Diomaye Faye wax na ko. Moustapha Diakhaté wax na lu mel noonu Moustapha Cissé Lo waxoon na ne Sonko dañ ko war a rey doomeram la moom noonu la ko waxee woon quoi Ahmed Suzanne Camara newoon na Sonko nañ ko rey <laughs> est-ce que yéen a ngi dégg pourtant ñoom kenn topp leen si dara procureur woowu leen kenn woowu leen te ñi nga xam ne ñoom lañ doon tooñ buñ buñ defee plainte kenn du leen faale dëkk bi dëkk dictateur vrai dictateur la woon quoi. gars yi nag tey su may su may seetaan gars yi quoi yenn gars yi ñu nekk di wax Sonko nii Badara moom vrai doomeeraam la quoi Badara Gadiaga doomeeraam bu mag a ngi noonu démb laa seetaan jàkkaarloo mais après naa def ci moom vidéo jarul ma yaatal ci moom quoi da nga jël sa wàll bu baax a baax xam na ne li fi woon wooni na quoi instant yi moom mooy loolu yar bi dañ koy jël teg ko ne le ndax yéen ku yaru mënul def ak yéen. nañ pause foofu noonu Badara nga jaga ba ci kanam waaw man li ma gën a jaaxal mooy ñi faroon ak ngi Sall lu leen neex lañ doon taxaw di wax di saaga lu leen neex daal nañ rey diw nañ def nii nañ def nii dara du leen ci fekk ñi nga xam ne ñoo toppoon ci kaw Ousmane Sonko duñ def dara am na ñoo xam ne ay emoji rek lañ publier seen page reetaan reetaan rek ñu jàpp leen am na ñoo xam ne bracelet Pastef lañ takk ñu jàpp leen am na ñoo xam ne live Facebook lañ toog di wax seen xalaat ñu jàpp leen mais dëkk bi demoon na bu toll noonu am na ñoo xam ne waxuñ ci woon dara ndax ñoo woon côté boobu noonu ay journaliste yoo xam ne ay journaliste Macky Sall lañ woon waxuñ dara naan fii ku fi fii yoon moo fi dox ku ku fi weddi yoon ñu teg la si yoon. gars yi ñoom loolu lañ doon wax ko ñoom ba gaje Gadiaga ñoom ay vrai politique seen lañ ba pare di mbubboo ay journaliste. wala ay chroniqueur ñoom ñëpp xam nañ ne Badara Gadiaga moom ñëpp xam nañ ne ci bay Sall la bu génnee di jéem a no non Badara Gadiaga da ngay bàyyi Sonko ci nii wala ci nee nag bu yeboo mu leeral nañ waaw waxoon naa damay post yow mais mooy loolu dafa bëri ay journaliste naafeq yi fi nekk waaw Cheikh Yérim Seck mooy noonu ñamal nañ ko dem jàngal ko quoi dañ ko yóbbu rek pour jàngal ko après ñu bàyyiwaat ko mu dem Kader dañ ko yóbbu jàngal ko bàyyiwaat ko mu dem gars yi da ngeen yaru de da ngeen yaru Bougane xam naa yaakaaroon na ne dina yàgg ci prison ba xam naa loolu la yaakaaroon dafa dem rek ñu xamal ko àdduna xamal ko yoon xamal ko affaire nu muy doxee bàyyi ko mu ñibbisi quoi dana nekk nit par la force dana nekk nit dana nekk nit sama gars yi da ngeen a war a xam ne jamono jooju noonu passé ak jamono jii nii bokkul quoi lu nekk lañ fi teg Ousmane Sonko lu nekk lañ ko fi teg Basirou Diomaye fay wax na ko loo xam ne nekkul loo xam ne dañ koy laam-laamee sax ndax kii dañ ko tooñ wala tooñ ñu wala dañu salfaani ay droit wala salfaani wuñ ko koo xam ne buñ ko convoqué mu war a dem tribunal duñ ko bàyyi mu dem de dañ koy topp naan fii ngay jaar fii ngay jaar di ko sonal koo xam ne gaa indi nañ ay saar ay camion gendarmerie gaare ko si buntu këram arme wu jàkkaarloo kër gi koo xam ne am na ay soxna am na ay doom waa koñ bi yëpp lañ barricade kenn du génn kenn du dugg ngeen loolu c'est normal quoi ngeen loolu noonu c'est normal ñu jóge foofu ngeen jàpp ko yóbbu ko prison ba mu neex leen ngeen génnaat ngeen loolu se normal quoi ak li ngeen teg Ousmane Sonko yëpp léegi ba ñii defaguñu xaaj bi sax ñu kenn dañ leen di tooñ ñu dem yar leen indiwaat leen jàng duñ leen kii sax dañ leen di yóbbu jàngal leen yoon yi bàyyiwaat leen ñu ñibbi. ngeen ñii dañuy salfaani ak yelleefu nit ñi quoi Bassirou Diomaye Faye da ngaa baax rek Bassirou del fàttaliku démb quoi del fàttaliku démb basiiru Diomaye est-ce que temps yi ngay wax lii nii métti woon na la trop métti woon na la trop mais man dama yaakaar ne li ñu leen toggoon nii yëpp yow danga ko fàtte li ñu leen toggoon nii ci lu métti yëpp man dama foog ne da ko fàtte quoi moo tax ngay jéem a toléré quoi gars yi ñuy wax lu leen neex nga bàyyi si biir. mais Bassirou Diomaye Faye ñu la doon teg lii yëpp man dama bëgg dama la koy ñaan ku ci sëqat yóbbu ko foofu noonu tëj ko fàtte ko wala nga fayu fayu leen quoi man loolu laa leen di ñaan ngeen fayu ñoom doole bi ñu amoon ñoom ba leen koy jaay yéen doole boobu noonu moo ngi ak yéen fayu leen quoi man loolu laa leen di ñaan ngir yàlla fayu leen ba ñoom ëllëg ku fi nekkati du def lu mel noonu dañ leen di yar nekkul fayeeku comme soxor rek dangay fayeeku comme yar leen pour beneen jamono kenn kenn si ñoom bu nekkee président fii ci réew mi du sañ sax technique loo xam ne injustice la dafa leer gars yi bëggee naa leen bu baax a baax abonné leen di like di abonné di partager <laughs> jaajëf sama gars ba ci beneen bi